asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokk sénégalais yi maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax man la seen xarit seen frère Cheikh Tidiane Dieng nekk fii ci Paris def samay vidéo di waxtaan ak yéen ci li xew ci Afrique ak suñu réew Sénégal ci sama chaîne bi nga xamante ni ah, Sénégal kese moo ko tax a jóg am naa yeneen chaîne yoo xamante ni anglais laa koy làkk ak espagnol ak boo xamante ni chaîne française la waaye bii moom bu ma ko bu ma ci waxee rek souvent sujet la yoo xamante ni dafa am lien ak Sénégal moo tax. Euh, may jégalu nag ci ñàkk euh, déggoo bu yàgg bi ak euh, gëj ñëw fii ndaxte ñàkk jot bi rek la dëgg yàlla mais sama xel saa su ne di nekk yéen waaw mooy affaire statue yi nga xam ni mi ngi am Afrique ak monument yi xam dañu koy jagleel ay tubaab def ko yu baree bari bari boo ñëwee Saint-Louis am na bu mag boo xam te ni moom na ñëpp gën a xam muy Faidherbe statue bi nga xam te ni moom lañ jagleel kii di Louis Faidherbe nekkoon français boo xam te ne ñëwoon na Afrique ci atum 1854 nekkoon gouverneur Sénégal ci Afrique jamono bi am na débat bu baree bari boo xam ne commencé di tàkkarnaase ci àdduna bi ñëpp di ko coow mooy ndax dañoo war a daaneel statut yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew nasaraan yi ak ci réewu africain yi di mm, di di mandargaal ay tubaab yoo xam te ni bi ñu daan dund ñoom dañ daan accepter esclavage di ko encourager daan dem ci réewu Afrique yi di nord africain di leen humilier di leen gàcceel. li ko waral nag jamono bi xam nañ ko mooy la xew ci Amérique mooy bi ñu rey ko di George Floyd noir américain boobu di George Floyd dañ ko rey rey bu doy waar ñu gis tubaab policier jël oomam teg ko ci baatu ci ci put ji ba waay ji sax mënta noyyi di wax naan I can't breathe ci anglais mooy mënuma respirer mënuma noyyi noonu la doon loolu noonu ci noonu lañ ñàkkee bakkanam mu nekk lu ñaaw loo xam te ni ñu bari gis nañ ko teg seen bët loolu nag indi benn soulèvement populaire bu am doolee ci biir Amérique ak ci benn mouvement bu ñu wax Black Lives Matter maanaam dundu nit ku ñuul am na njariñ mouvement bu am doole ba tey jii ñuy daanal ay monument yu bare bare bare daanal nañ monument ki nga xam te ni moom mooy Christophe Colomb am na ay dëkk yu bari yoo xam ni monument Christophe Colomb ya fa nekkoon daanal nañ ko Christophe Colomb espagnol woon boo xam te ni euh, ñoom la ñoom ñoom la espagnol tuddee les conquistadores los conquistadores nga xam ne ñoom. ay colon la ñoo xam ne daan judo euh, seen réewu nasaraan daan wër ak seen i ci àdduna bi ñu bëri nee nañ moom moo découvrir Amérique en 1492 ñu bëri wax nañ ko euh, monument kii di Jefferson Davis daanu na Jefferson Davis ñu ko xamul mooy benn tubaab la woon américain la woon moom moo déclaré woon en 1881 l'indépendance des États du Sud maanaam Amérique boo demee euh, Amérique dafa am ay réew yu nekkoon ci sud bi état yi nekk sud bi nga xam ne ñoom dañ daan pratiquer esclavage noir yu bëri foofu lañ nekkoon bu ñu jógee Afrique foofu lañ leen yóbboon ñu daan liggéey ci toolu coton léegi ñoom comme que tubaab yi nekkoon foofu dañ daan utiliser noir yi leen liggéeyloo te du leen fay dara kon loolu dafa neex am nit koo xam ne mi ngi lay liggéeyal fajar ba guddi mu wàcc nga dem nga ne ko demal tëdd mu dem tëdd bu xëyaatee suba nekkaat ci liggéey ba te yow doo ko fay dara te bu weer wi deewee lam la di liggéeyal yaa ngi ci am sa sa sa xaalis loolu moom dëgg-dëgg neex na Lincoln ne man su ma jëlee président Abraham Lincoln ne su ma jëlee nguur gi li di ak njaam dama koy jeexal ci dëkk bi day jeex tax esclavage gars yi ko nag duñ ci daal de waa gars yi ne ci sud bi ne ko ñun nag ci esclavage ci dañuy dund ñun suñu économie yëpp ci esclavage la maanaam ñun jaam yi dañ leen a soxla pour mën a def suñu business ndax ñoom ñoom ñu liggéeyal te liggéey bi liggéey bu métti la boo xam te ni ñun nasaraan mënuñu ko def ñun tubaab mënuñu ko def nit ñuul moo ko mën a def mu ne man daal lu ci mën ne am bis bu ma jëlee réew seen jaay njaam ngeen nekkee ak jël nit leen teg ci yenn condition xam ni tegu ko fenn man wax dëgg yàlla du ma ci accepté du ma ci ànd yàlla suñu borom def en 1881 ñu dem élection Clinton euh, Lincoln gagné bi Abraham Lincoln gagné immédiatement rek kooku di Jefferson Davis dafa déclaré indépendance ci état yi nekk ci sud bi yépp ne ñun comme que waa ji gagné na te moom nee na bu gagné day jeexal esclavage ñun léegi dañu jël suñu indépendance nga xam ne ñun duñu mën a mënu dootu mënut ñun dara ndax ñun bokkatuñu sax ci Amérique léegi génn nañ ci Amérique continuer nekkaat suñu njaay suñu jaay njaam ak di di di di noot ñuul loolu moo créé guerre civile américaine boobu noonu nga xam ne jure na ñeenti at ay nit ñu bari bari ñàkk seen bakkan ndax Lincoln dana ko fii moom duñu nangu benn état de jël indépendance Amérique moom ba keroog ñuy sàngoo suuf benn réew lay doon boo xam ne ñëpp dañu booloo nekk benn. kon nga gis ne am na ay monument yu bari yoo xam ne ñu ngi koy daaneel ci réewu nasaraan yi commencé ci Amérique ak Angleterre temps yi tàng na lool. waaye itam ak Belgique ndax benn statue boo xam ne moom lañu doon euh, mandargaale ki di Léopold II mu nekk roi boo xam te ñëpp xam nañu roi bu doy waar la woon ci ak la nga xam def na ko ci Afrique foofu di Congo comme Congo Kinshasa am na benn monument wax daana nañ ko ci benn ville bu nekk euh, Belgique waaye itam loolu dafa law ba ñëw France ndax jamono bi bu ngeen dégloo ci actualité am na benn dëkk bu ñu wax Lille boo xamante nii am na ay manifestation yu manifestation yu métti yu fa yoo xamante nii li ñu bëgg ñoom mooy ñu daaneel monument boo xam ne moom lañ ko def di ko mandargale ci di Louis Faidherbe ndax luy Faidherbe moo ma nekkoon ca Ndar Lille la jóge Lille mooy dëkkam fa la juddoo fa la yaroo daal di nekkoon administrateur français ba yàlla def ñu doon ko Sénégal en 1854 te ba mu ñëwee Sénégal itam lam fa def xam nañ ko ndax moom ci boppam moom moo yabaloon ay nit ñu taal Fatick moom luy Faidherbe bi mu taalee Fatick def fay njaaxum yu bari kii di ab Iba Der Thiam bu yàggul wax na ne Louis Faidherbe bi mu ñëwee Sénégal rey na plus de vingt mille personnes loolu bëri na trop vingt mille personnes waaye teg itam ku ne xamoon na ay relation ak kii di Lat Dior Diop nu méttee woon ndax moom Louis Faidherbe bi mu nekk ci nguur di bi mu ñëwee Sénégal en 1854 nekk gouverneur Sénégal amoon ay relation yu metti métti ak kii di Lat Dior Diop ba mu mujj wàccee Lat Dior teg fa Majoojo ba bi mu génnee Sénégal ñibbi waat France Lajoor ñëwaat jëlaat nguur gi ci Majoojo dañoo woowaat Faidherbe bi ne ko ñëwaatal Sénégal ndax Lajoor jëlaat na nguur gi te Lajoor defu lenn lu dul défendre askanam défendre am réewam te loolu yaakaar naa ne tey ku ne am nga ci droit ndax tey fii ci France tey ak Espagne wala Italie wala Angleterre ñëpp ñu naan dañoo war a tëj frontières yi dàq étranger yi dàq gan yi dàq noir yi dàq arabe yi ñoom ñëpp tey dañ leen di tàccu di wax ne ah ñi ay patriote ñu bëgg seen réew lañ. te wax nga dëgg loolu moo baax ndax Trump ci loolu la gagné élection yi nañ tëj frontières yi mexicain nañ toog seen réew bu kenn dugg suñu dëkk fii ñoo ko moom suñu réew la America first Amérique d'abord soxaluñ keneen France itam gis ngeen Front National ça des années et des années ci loolu la def fond de commerce am na noir ñibbi seen dëkk na arabe yi ñibbi seen dëkk na étranger yi ñibbi seen dëkk bàyyi ñëw suñu réew Espagne itam la même chose nekk bu tudd Vox boo xam ne ci loolu la nekk Italie itam gis nañ Salvini Matteo Salvini bi mu ñëw itam ci loolu nekkoon na ñëpp ñibbi seen dëkk bàyyi ñu toog suñu dëkk ñu ni neen seen xel moo gàtt waaye bu fekkoon ñu ngi doon gëstu ci histoire danañ xam ni seeni maamaati maam génn seen réew ñoom dem ci réew jàmbur leen noot di sàcc seeni richesse moo tax tey ñoom ñoom ñoom ñoom li ñu am ndax tey ki di Faidherbe mënoon naa toog réewam waaye def ko dafa génn dem Sénégal yaa ngi dégg colonisation ba muy am lan moo tax parce que ay business la boobu tam la moo tax tubaab bi daan dem ba Afrique bu dana jaroon jël ay bateau di nekk ay ay fan yi fan di fanaan ci géej gi ci àll bi pour dem ba Afrique jël ay noir parce que boobu temps business la woon bu ne ku ne dafa war a toog ci am réewam rek yaakaar naa ne bu seen i maam ñoom toogoon seen i réew kon tey jamono bi yaakaar naa ne xëy na ñoom richesse bi ñu am tey ba di ko ndamoo xëy na duñ ko ba dañoo dem sax ba yamatuñ sax di ndamoo seen développement technologie wala économique waaye dañoo dem bay ndamoo sax seen i passé historique yoo xam te ni ay passé yu xaw a doy waar la tey boo demee tey espagnol dañuy wax tey la la la Gloria hmm? naan ñoom seen i membres ñoo demoon Amérique latine foofu di Colombie wala Mexique wala Venezuela wala Pérou nga xam ne ay dëkk yoo xam ne ay indiens ñoo fa nekkoon noot leen toroxal leen boom leen ray leen imposer leen seen culture dañ koy ndamoo ñoom tey Espagne chaque année mois d' octobre yaakaar naa le 12 octobre la mooy la fête la Hispanidad nga xam ne moom lañu jagleel kàllaama espagnol ak fête Espagne nga xam ni Hispanidad lan lay ba ñu dem Amérique ñoom ci Amérique latine di doo di boom ay nit ñoo xam te ni seen réew lañu nekkoon amuñu ñoom benn problème pourtant dañu leen fekk seen réew boom leen toroxal leen gaañu leen ku jàng histoire Algérie xam ni Algérie guerre ba amoon ak France kenn mënta jox France ndam ndax Algérie seen réew lañu nekkoon di défendre seen réew ku jàng histoire États-Unis nga xam ne américains yi anglais bi ñuy yebal ay colons ay nit ñu leen yóbbu Angleterre di leen yóbbu États-Unis pour ñu découvrir le nouveau monde bañ demee Amérique am na lu ñu fa fekk fekk nañ fa am réew ay indiens yoo xam te ñoom ñu woon seen culture seeni cosaan seeni réew tubaab bi ñëw ne ah ñi daal liñ nekk dara baaxu ci dañoo salte dañoo tilim xamuñ liggéey ji réer boomu leen humilier leen ña doon bañ ñu roy leen ba ñoo ñooñu jaadaka jeex la ca des bëriwut ñu ñu ñëw Afrique imposé esclavage jël ay noir yóbbu leen pour ñu liggéey leen kon nga xam ni pendant des années et des années et des années ñoom nekkuñ du dul boom ay nit rey ay nit déformer histoire léegi fi mu doon lépp loo xam ne defoon nañ ko ci nañ koy jéem a rafetal ne non loolu lu baax la woon ñu dañoo dem Afrique pour yóbbu civilisation bu africain yi làkkee anglais tey ñu làkk anglais bu africain yi làkkee français tey ñun ñoo tax ñu làkk français bu africain yi làkkee italien wala espagnol ñun ñoo tax loolu noonu guerre la boo xam te ni guerre idéologique la waaw yàq nañ def nañ lañ bëggoon a def jël nañ richesse Afrique pendant des siècles di ko sàcc enrichir ci am ci xaalis ba am ci li ñu am tey léegi nag ñu ne dañoo bëgg africain yépp ñibbi seen réew toog seen dëkk ndax daal bu ku ne toogee dëkkam rek yaakaar nañu foofu la jàmm war a mën a am ma jàpp ne ñoom bu seen i maamaat yi maam toogoon seen réew xëy na kon day ñoom li ñu am xëy na duñ ko am kon nga gis ne euh, africain yi am na lu bari loo xam waroon nañu koo jànkaat ci seen culture ndax dama yaakaar ne problème Afrique dëgg muy man muy mu ñëpp ndax ñëpp malheureusement école africaine yi ñu jaar moo ñu rey man jàng naa tey anglais dama koy làkk nu ma neexee damay làkk espagnol nu mu ma neexee damay làkk ci kàttanu yàlla suñu borom damay def ay vidéo yoo xam ne Espagne ñu bari dañ koy partage di ko seetaan damay def ay lu bari loo xam te ni maa ngi ko def ci langue étrangère te pourtant tey su benn benn lettre tey ci bi ma nàmp di wolof tey damay damay am jafe-jafe waaye du faute bi du ci man dañ ma koo jàngalul maanaam bi ñu jëlee indépendance africain yu bari ci di war na profité gën a gëstuwaat seen culture gën a jàngaat seen histoire gën a xamaat seen cosaan ba pare seeni làkk ñu gën koo valoriser di jàngale wolof di jàngale pël di jàngale joolaa di jàngale bambara di jàngale lingala ba seeni doom mën koo làkk waaye itam mën koo bind waaye defuñ ko dañoo toppaat ca la nasaraan yi neewoon rek grammaire civilisation littérature française Molière la ne wax ak euh, Maupassant ay yu kenn xamut ñoo xam te ni ñu ci bëri ci ñoom boo xoolee seen histoire ay raciste yu bon lañu woon am na écrivain yu bari yoo xam boo demee ci lay France wala nga dem Sénégal ci seen université ñu ngi leen di jàng di ci bind ay mémoire di ci rey élèves yu bari yoo xam ne ñu ne ñu leen def looy exposé tous les jours wala boog chaque année ñu def loon exposé ci sujet yu métti professeur di leen sanctionné sanction yu métti te waaye bi ñuy def exposé ci moom di ci di ci sonn di ci rey suñu bopp kooku ba mu daan ba daan dund la mu daan wax nit ku ñuul yow maanaam nit ku ñuul ku mës a dégg da nga daan da nga daan am lu la mais kon nga gis ne africains yi war nañoo defaat li ñu tuddee la décolonisation mentale maanaam changé waat xel yi li boobu mat doon wax rek si emancipate yourselves from mental slavery mu tekki ne none but ourselves can free our mind mun nañu libéré waat suñu bopp ci esclavage mental kenn ku dul ñun mënta libéré suñu bopp te bu njëkk ba tubaab dañu doon def esclavage physique maanaam dañu daan yeew suñu tànk yeew suñu loxo noot ñu ba sax suñu baat di ko daan yeew di ko téye xëcc léegi nag dindi nañ loolu lépp waaye ba tey dañoo yeew xel yi ba am na ñu bëri ñoo xamante ni lépp loo xam te ni tubaab jug ko kaas ko rek ñoom duñ ko war a kaas maanaam tey lii de Faidherbe bi xam ni euh, monument Faidherbe boobu nekk ca Ndar waruñu woon sax di xaar ay tubaab nekk ca Angleterre wala ca Amérique di ko kaas pour ñun ñu soog koo kaas dañ ko waroon dindi depuis très longtemps man amul benn problème ak Faidherbe boobu maa ngi dëkk France amul benn problème ak Faidherbe yaa ngi dégg waaye koo xam te ni bi mu ñëwee réew euh, Sénégal dafa ñëwoon pour humilier ay Sénégalais gàcceel leen noot ñu. te bépp Sénégal ko mu jugoon nga pour kaas nekkin ji fa tubaab yi nekk ñu boom la rey la kooku yaakaar naa ni bu jógee suñu réew war nañoo xool naka la ñuy def ba fàtte ko waaye duñu xool naka la ñuy def ba di ko tabaxal monument boo xam te ni ku ñëw ndar sa xel ci loolu la njëkk a dem fi mu toll Sénégalais yu bari xam nañu kuy Faidherbe te pourtant Faidherbe la mu def Sénégal ci ay njaaxum français yu bare bari bëgguñ seen i doom xam ko te duñ dinañ def lépp luñ mën ba nëbb ko kon nga gis ne nit ko ñuul dafa am benn complexe d'infériorité bu nekk ñun maanaam suufeel boppam ba jàpp na ni sax tubaab bi ñëw di ko noot sax kooku ëllëg bu demee dañu ko war a tàccu tey am na ay dëkk yu bari yoo xam ne wala université yu baax ñu ngi jox ay turu tubaab man université Gaston Berger laa jàngee université Gaston Berger su ma sañoon tey université tur nit ku ñuul lay am africain yaa ngi dégg William Ponty am na am na rue defaa nga dégg ñu ni euh, rue Carnot wala yeneen rue yoo xam te ni ak yeneen endroit yoo xam te ni ñu ngi koy tuddee ay nit ñi weex ñoo xam te ni xëy na bi ñu ñëwee Sénégal dañoo ñëwoon pour mission rek pour noot ñu gën ñoo noot gën ñoo indi problème waaye ñëwuñu woon pour libérer ñu parce que loolu taxu leen woon a jóg. kon débat boobu di am ci saint yi ñu naan ko euh, affaire affaire monument yi affaire statue yi c'est simple Faidherbe nañ fa dindi statue mu jaar tàkk ñu fàtte Faidherbe lépp loo xam ne am na lien ak moom ñu dindi ko. xool Sénégal ña fa nekk tey kilifa diine yu mag ñu jox leen ay tur ndax seeni Touba ma nga fa Alaaji Malik ma nga fa Serigne Fallou Mbacke ma nga fa ak ñeneen ak ñeneen ba suñu kilifa yi nga xam ne ay chrétien lañ sax ay Hyacinthe Thiandoum ak ñeneen ñeneen yoo xam te ni ay kilifa yu mag lañu nekk Sénégal daan julli di jàpp di ñaanal Sénégal ñooñu tey mérite nañ ñu jox leen ay tur am na ay soldats yoo xam te ni ay jeunes lañ génn nañ àdduna ci ay guerre Afrique nekk ay Sénégalais ñu boole leen ay Libéria wala ay Congo ñàkk fa seen bakkan ñooñu tey mérité ñu tuddee leen ay monument wala ñu tuddee leen ay mandarga yoo xam ne ni ëllëg bu suñuy doom juddoo danañu fier nekk ay africain waaye nag bu dee yow heure boo amee monument booy tuddee rek balaa nga koy am jàmm dëgg il faut mu nekk turu tubaab parce que jàpp nga ne turu tubaab moo gën a civilisé Louis Faidherbe euh, William Ponty Gaston Berger Daniel Sorano et cetera léegi bu dee ma ñoq la tudd wala wala wala ma nga ne noo kooku duñ ko tuddee parce que amul benn njariñ yaakaar naa ne loolu gàcce mënu ko weesu kon ñun suñu situation mooy suñu problème mooy ñun suñu bopp dañoo war a libérer suñu bopp esclavage mental ñu dindi ko jéem a xam ñooy kan xam suñu culture xam suñu cosaan xam suñu aada ba lii am tey nga xam ni tey gàcce goo rëy ñun ndax defoon naa ci benn benn benn benn euh, post euh, boo xam ne ma ko publié sama Facebook ma ni li ma jaaxal mooy bi ñu reyee George Floyd boobu la ñuy soog a rey George Floyd muy jour njëkk yi man li ma jaaxal mooy bi 2015 euh, bi ñu attaqué euh, Charlie Hebdo président africain yu bari dañoo jógee Afrique ñëw ba France di marche man de sa amu benn problème ci côté boobu ndax jàpp naa ni rey moom baaxul kon bu fekkee mënuñu def marche wala dara pour fàttali fàttaliku ñu génn àdduna pour gis ne pour jàngal ñëpp ne rey lu bon la condamné ko man daal newu ci waaye li ma jaaxal mooy bi ñu rey George Floyd. président yu bëri kaasu jamono bi sax laa commencé dégg ñenn ci ñoom di commencé kaas ndax jamono bi mouvement bi xaw na am doole waaye rey nañ ay noirs américains ci rey yoo xam ne teguñ ko te ni ba tey jii situation bi weex ñi waaye tabaxuñ pour nit ñu ñuul ñu nit ñu ñu nit ñu ñuul dañ utiliser comme ay comme esclave te ba tey loolu loolu ci loolu lañ ne te pourtant président africain yu bëri danañ dem Amérique def ko ñu def seen discours waaye doo mës a dégg ñu wax situation boobu ñu rey ay noir rey ñaaw yoo xam te ne ñu ngi koy gis ñëpp di ci seen bët doo dégg benn njiitu réew en Afrique teg ko di ci wax te pourtant bu doon dañuy rey Afrique ay fii ci Afrique ay tubaab wala ay euh, ay ay ay nit ñu weex comme ni ñu rey ay noir yi ci Amérique da gis kon am ay réew tubaab yu baree bari bari seeni i président danañ jóg kaas ne am na lu xew kon nga gis ne gëmatuñ suñu bopp moo tax ñu faible trop. ba ci intellectuel africain dama koy sentir fi mu toll nii mu nekk loo xam dafa may trop am na ñu bëri ñoo xam ñu intellectuel kay Sénégal lañ koy doone wala Afrique di bandi bandi lu foofu di kaas di yuuxu waaye mu xasee ba ni képp Europe jeex na nekkatuñu intellectuel dañuy daal di tëj seen làmmiñ daanuñu daanuñu duñu sax ngaan parce que yaakaar nañu bu ñu waxee dara sax bu subaa gars yi génne leen dëkk bi wala ñu indi leen problème dem nañ ba yaakaar ni sax maanaam tiitaanga boobu sax day dem ba day tax day mel gëmatoo yàlla ndax suñu wërsëg ñoom yoruñu ko yàlla suñu borom moo ko yor yaa ngi dégg suñu wërsëg tubaab yoroo ko yàlla suñu borom moo ko yor waaye ñu wala situation am diggante Afrique kenn nit ñoom du ci kaas da nga naan ñeex noppi parce que yaakaar nañu boo waxee sax suba gars yi lay problème ba ci sax man vidéo yi may def wala sama analyse yi may def defaat ci wax ci affaire vaccin yi sax ñu ci bëri gis fu mu tuddee vaccin yi sax dañuy commencé di trembler te ku ne xam na ni lu mat presque 30 nii wala 40 ans wala lu ko ëpp am na ay industrie pharmaceutique yu mag yoo xam ne jël ay vaccin di ko yóbbu Afrique di ne neexuma man bi la am problème de ndaxte vaccin yoo xam te ne ko defar man mi di wax ak yow su ma feebaree tey France wala ma amee damay dem ca pharmacie ba jënd fay vaccin wala ma jënd fa loo xam te ni médicament la yoo xam te ni ay tubaab ñoo koy defar di ci faj ay nit poliomyélite ak ay ay laago ak yu baree bari yoo xam ni ay tubaab defar nañ ci ay vaccin yóbbu nañ ko Afrique di ci fay ay nit di ci faj ay nit waaye boo gisee lan moo war a waral Afrique nekk genre laboratoire boo xam te ni ku créé sa vaccin rek foog nga koy testé bu njëkk ba dañ ko daan testé ci animaux yi maanaam ci mala yi mën naa nekk golo wala jinax wala leneen waaye léegi bàyyi nañ ko yi bàyyi nañ jinax yi ndax dafa am ay organisation yu mag yoo xam ne dañu jóg di défendre animaux yi France am na benn bu ñuy wax SPA bu mag boo xam ne léegi bis boo laalee benn animal rek ñu def ñu dal dal dal dal ci kaw te bu yàggut euh, bu yàggut am na benn ville France damaa jàppatul ba dëkk la rey nañ fa benn ours ours lañ fa rey dóor ko bal mu sedd guy ba tey jii xamuñ kan noo ko reyee waaye am na association anim yuy défendre animaux yu bar France yoo xam ne proposé nañ plus de ne képp ko xam ne ni jox nga leen tur waa ji rey ours bi danañ la ko jox plus de 10 000 euros te yaakaar naa ne sax ëpp na loolu jàppatuma chiffre waaye mën naa mat 10 000 wala 30 000 euros nga gis ne léegi animal benn animal dañ koy rey ñoom ñu jóg xeex ci xeex boo xam te ni adduna bi yëpp ko jóg jóg proposé xaalis bu baree bare baree pour jàpp kan moo ko rey ñu rey nit ku ñuul kenn du kaas jël ay vaccin yóbbu ko Afrique ñëpp xam ne vaccin yi ñu yóbbu Afrique pareegul dañ koy testé testé ko ci xale yu baree bare bare dana am ñoo xam danañu rëcc xëy na mu tane am ñoo xam ne dana yàq seen dund ba faaw ndax bi ci mujjee am wala bokk bi nga xam ne moom laa gën a jàpp mooy bi amoon en 1996 ci Nigéria nga xam ne industrie pharmacie boobu pharmacie boobu ñu naan Pfizer moo ko defoon ray ci ay xale te doon testé vaccin vaccin pareegul mu te bu testé yóbbu ko Afrique te bàyyi Amérique ay xale laalul xale américains yi jëlul xale français yi jëlul xale italiens yi jëlul xale español yi parce que ay nit ñu weex lañ mu ñëw kon bu ma jógee di wax ci affaire vaccin yi nga gis ñu bëri ci ñoom dañuy trembler dañuy lox waaw Cheikh li ngay wax nii dafa garaaw ana say source nangam nangam man leen man inventé wu ma dara waxuma dañoo yóbbu dañoo yóbbu vaccin pour ay africain yi de mais dama ne bu fekkee coronavirus bi fii la ëpp lu muy rey que bu dee dañoo war a testé kon fii lañu war a ëpp li ñuy testé que si fee c'est c'est aussi simple que sa kër buy tàkk yaa ngi dégg balaa ngay dem tout di di wut ndox naan damay damay damay sotti sama këru sama kër dëkkandoo ta dama ngay sa sotti sa ba pare ba fay lakk gi soo ko dem la fay fay fay fay lakk gi nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy gaañ sa dëkkandoo kon coronavirus mënuñu am ay cas yu bari France France am na plus de vingt vingt cinq mille morts Espagne am na plus de vingt huit mille morts Italie am na lu toll noonu Amérique am na plus de cent mille morts Afrique amaguñ nombre boobu ci morts te pourtant bu vaccin yi génnee balaa ñu testé kenn dañu ne ñam Afrique ba pare ñu gis ne kon ba pare ay intellectuels yi ànd comme esclavage la woon di jàpp suñu maam yi leen am na intellectuel africain yoo xam te ni booba temps du mën sax intellectuel la xëy na jamono boobu jamono colonisation bu dul intellectuel waaye am na africain yoo xam ne àndoon nañ ci am na ay buur yoo xam te ni dañoo jaay ay nit jaay seen xeet parce que tubaab bi jóge na Europe indi la sàngara indi la seetu indi la ay objets yoo xam ne ay pacotille la nga jël ay jigéen ak ay góor dugaleen ci bateau séparer leen ba faw loolu ay nit ñuul def na ko bu ñëwaatee indi seen vaccin il faut ñu appuyer sur la classe politique africaine ay intellectuels jël leen na leen léegi nag képp ko xam ne mi ngi jóg pour casse vaccin rek dal leen ci kawam yàq yàq yàq réputation am ba léegi intellectuels yu bari bari bari ñemeetuñu def le travail bi nga xam la ñu def di casse li xam te ne moom mooy am Afrique ba léegi sax ay tubaab ñoo koy casse nga xam ne kon amul problème vaccin yi am nañ tubaab yoo xam ne dañuy def ay vidéo YouTube di dénoncer ni nga xam ne noonu Bill Gates ak ay xar ay mbokkam di demee Afrique di rey ay africain di rey ay indien di rey ay ay ay ay ay ay peuples yoo xam ne muy Amérique latine di testé ay vaccin yoo xam ne dara pare gu ci di ci gagné xaalis bu baree bare bari bari am ñoo xam ne laagoo nañ ci ñàkk nañ ci seen i tànk am ñoo xam te ni jamono bi gumba nañ am ñoo xam te ni leneen daal na leen léegi ay tubaab sax ñoo jóg di kaas loolu te loolu ay africain ay noir ñoo ko waroon a kaas parce que léegi dañoo dem ba intellectuel africain yi dañoo dem ba nee na xoqatloo leen ba ñem duñu sax wax ba ca analyse politique yi may def man ndax ni yàlla dafa def ma nekk ko xam ne dama bëgg di analyse jox sama xalaat damay wax ci France damay wax ci États-Unis wax ci Angleterre di ko sant yàlla suñu borom bu baax a baax euh, des fois damay def benn vidéo benn tubaab envoyé ma message rarement nag lay am wax dëgg yàlla may dafa gis ko xam ne day jaloux day day iñaan envoyé ma benn message na ma yow nii nga def di wax suñu réew la ma tax doo wax sa réew ngay wax suñu réew gis ne kon dem nañ ba ñoom dañoo jàpp ne lépp lu jëm ci Afrique ñoom am nañ droit wax ci bu leen neexee ñoom tubaab bi parce que ñoom jàpp nañ ni loolu waa ji doon wax naan manifeste destiny nga xam ne am 821 daf koy fu nekk genre réew moo xam am na droit moom joxe leçon de morale fu génne la doctrine de Monroe doctrine de Monroe mooy doctrine bi nga xam te ni moom mooy permettre américains yi bépp guerre bu am wala bépp problème bu am ci Amérique ñoom am nañ droit par force dem régler ko waaye beneen réew amul droit régler ko yaa ngi dégg donc manifest destiny doctrine de Monroe tekki aussi the white man's burden nga xam ne loolu ñu tuddoon the white man la charge de l'homme blanc le fardeau de l'homme blanc ñoom ne nit ku weex yàlla suñu borom dafa ko sàkk rek pour mu ñu wàcc àdduna pour pour xettal yeneen xeet yi pour yar yeneen xeet yi pour civiliser yeneen xeet yi maanaam africain ba may problème tubaab war naa toog jox leçon ne li la ñu war a def ba régler problème bi bu arabe bi amee problème ñoom la ñu war a def pour régler problème bi problème war nañoo toog joxe leçon li li ñu war def pour régler problème ñoom am nañ droit boobu waaye ñoom bu ñu amee problème africain waru cee wax naar waru cee wax chinois waru cee wax indien waru cee wax kenn waru cee wax parce ñoom ñooy les patrons ñoom ñooy les chefs gis ne kon même boo nekkee noir dafay analyse ci France wala ci Amérique wala ci Italie wala ci Espagne dana am xëy na ñu bëri ñoo xam danañ la apprécier di la bëgg di la suivre te yàlla si moom def na boo am ñoo xam te ne ay jaloux lañ te ñaan nañ ñaan nga xam ne nit ñuul war te mën a yegg niveau bu muy joxee tubaab leçon te loolu africain yu bari dañ ko accepté am na intellectuel africain yu bari ba wax ci France wala wax ci Italie wala États-Unis nga dégg ñu wax soo yow daal da ngay waaru ko ah bàyyi dem ba ñëpp dañoo dépassé ne ñoom amatuñ sax droit wax de ci ci France loolu moo war a defar yenn professeur université yi xam ne tekkuñ dara France dañu dem Afrique nekk fay star daan tépp ci université gaa jox leen bureau waaye ji ñëw conférence sàlli fees dalek ay nit ñuul mu wax lu ko neex gaa yi wuu waa ji ponkal la université Paris la jàngee Sorbonne la génnee waa ji magistrat la Lille la génnee kii États-Unis la jàngee kii fii la jàngee kii fii la jàngee di fekk waa ji Afrique euh, France gi mu jógee wala Angleterre gi mu jógee wala États-Unis gi mu jógee fa dara waaye kooku nit ku weex la rek bu ñëwee Afrique bu ko neexee wax lu ko neex africain yi tàccu te pourtant bu africain yi jógee foofu intellectuel ñëw France. pour ñu jox la cours nga jàngale sax problème la parce que duñ la duñ la ñu la duñ la wóolu dañ jàpp ne yow africain nga amoo xam-xam donc de temps en temps ñu bu ndaw rek ay 5 6 étudiants nga travaille ak ñoom c'est fini wóoluñu la gëmuñu kon tant que africain yi valoriser wuñu seen bopp yaa ngi dégg xam ne ñoom ay nit lañ comme tout le monde xam ne lii tubaab yi di casse tey di daaneel ay monument ndax tey monument ñuy daaneel ca ca ca France wala ci Amérique wala ci yeneen réew ay tubaab a koy daaneel ay boy tubaab ñuy jóg di ko daaneel. am na ay noir certes am na ay arab waaye ay booy tubaab ñoo koy daaneel ak ay ak ay ak ay ay tubaab yoo xam te ni jàpp nañ ne loolu lu bon la muy Colbert muy Faidherbe muy Jefferson Davis muy Christophe Colomb muy Léopold II lu mu ci mën di mel ay nit ñu weex tàll des fois ñoom ñoo jóg pour daaneel monument yooyu ba pare africains yi soo ko jóg di kaas te ñun ñoo ko waroon njëkkee ndax ñooñu dañoo ñëw suñu réew wala bu ñëwul suñu réew itam yabal nañ ay nit suñu réew ndax Colbert moom moo defoon li ñu tuddee le code noir ñu xam jàng nañ affaire esclavage xam nañ la mooy code noir Gaston Berger xaw ma koon waaye administrateur français la woon wax ni ñëwoon Afrique jotuma xam la mu fa def Faidherbe bu wax naa la mu fa def Iba Der Thiam xam ne historien nee na rey na vingt mille personnes yaakaar naa ne ci diir bu la ñu rey xam naa ne joxoon noonu ndigal pour ñu taal Thiès euh, Fatick xam naa ne ku solloon Lat Joor la te Lat deful lenn lu toog réew réewam di défendre réewam xam naa ni euh, Jefferson Davis esclavagiste doon boo xam te ni nit ku ñu rek la bañoon te li mu bëggoon mooy nit ñu nekk esclave ba keroog muy sàngoo suuf ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni jot nañoo ñëw Afrique wala ñu jot dem yeneen réew yoo xam xamante ni nopp nañu fay nit rey nañu fay nit te pourtant tubaab gëm na boppam gëm boo xamante ni bu ñooñu dee daf leen defal monument di leen sant di leen di leen tàcc di leen remercier xam ne ñooñu dañuy def lu bon Afrique rey ñu tur toroxal ñu bundoxataal ñu gàcceel ñu wane ginnaaw ñu jël leen jox leen ay monument di leen vénérer comme si ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne ñoo ñëwoon pour sauver ñu kon africains yi am nañ benn combat bu am solo boo xam war nañ ko def bu dee ay réew nañ continent la boo xam ne dañoo bëgg avancer wax dëgg yàlla il faut ñu libérer xel yi libérer mentalité yi delluwaat suñu réew ca cosaan donte nag ouverture am na solo trop képp ku ne jàng anglais baaxul dalay ndax anglais baax na italien baax na espagnol baax na arabe baax na waaye itam nga mën koo booleeg xam sa bopp xam sa réew di valoriser say say say say kilifa yaakaar naa ne loolu lu am solo la te yaakaar naa ne moomay combat bi ci la war dugg ndax monde bees lañu nekk. ku ne xam na ni coronavirus bi changé na àdduna bi ni muy doxee changé na lu baree baree bare bari bari africains yi war nañ cee profiter am seen liberté bañ mën leen respecter ndax am nañ lépp am nañ richesse naturelle am nañ jeunesse boo xam te ni tey am na xam-xam am nañ une démographie on est un milliard d'habitants ah démographie boobu la Chine am tey moo tax Chine sonal américains yi ak français yi un milliard d'habitants la am au lieu muy dem di investir ci à parce que xam na ni am na suffisamment de de de personne personnes yi nga xam ne mën nañoo consommer les consommateurs yi nga xam ne mën mënuñu ko jox économie yi nga xam ne moom moom moom moom moom la soxla kon gis ne war nañoo defaat ay gëstu ci suñu suñu histoire suñu culture jël monument yi nga xam ne moom mooy monument am solo am solo yi ak endroit yi xam ne jàpp nañu endroit yi am solo la mooy ay koñ wala ay tour centre euh, commerciaux wala centre culturel wala université wala euh, monument wala lu mën di doon jox ko ña nga xam ne ko yeyoo Serigne Touba fekk nañ ko dëggam exilé ko. Sëñ Tuubaa Sénégal la juddoo fa la yaroo fa la màggee nekk wàllewu àqan ñu fekk ko dëkkam exilé ko xam nga loolu tubaab rek moo ko ñemee ñëw ci réew jàmbur fekk fa koo xam te ni kilifa la nga génne ko dëkk bi te loolu tey ñun bu ñu ko defoon tey Afrique fii ci France coow am ndax ñoom bu ñu gisee africain yi sax dèjà da nga suñu commencé di kaas naan woy africain ñu ngi commencé bëri ah naari aussi ñu ngi commencé bëri jamono bii seen thèse yépp mooy buñ génneewul arabe yi ak musulman yi feeg fanweeri at wala feeg ñeent fukki at wala feeg juróom fukki at Europe day nekk réew moo xam te ni islam moo fi am doole ñoom temps yi loolu la ñuy développé comme thèse donte sax ay fen yi neen la ndaxte ku xam ak France xam ne certes y a une présence musulmane très importante waaye nag yegsee guñ fu fu ñu war a mën a waxee ne France islam dana fi am doole boo xam dana nangu réew bi te pourtant ñoom loolu dawal dañoo parce que xam nañ il faut ñu daw ñu ñu ñu ñu ñu ñu jouer ci ci ci la peur des gens tiital nit ñi pour mën a am liñ bëgg ñun nag da ngay ñëw suñu réew boom ñu génnee suñu kilifa. xoqatal leen ña àndoon ak ñoom nga gàcceel leen gaañ leen duma leen ba pare nga wane ginnaaw ñu jël monument tuddee la ko ne kii kat gan bu baax la woon jaaroon ci dëkk bi def na fi baax te fekk xam ne lam lam def yëpp dara baax fi kon jàpp naa ni war nañoo mën a gëstuwaat suñu culture tuuti xamaat suñu cosaan xam ñooy kan te xam ne dama wax dëggaal du ñu ay como yaakaar naa nit ñu def na lu rëy ci histoire ndax ku jàng ay euh, li nga xam ne Cheikh Anta Diop bind na ko ci ay livre l'homme de Néandertal bu xamal ne ni nit ki yàlla ndëkk sàcc àdduna nit ku ñuul la voyage bi mu ñëw Europe ak climat bi mu xam ne moom la fekk changement de climat bi boo tax sedd bi dafa métti woon loolu bokkut ak sedd yi nii loolu moo changé yaramam ku ñuul nekk nit ku weex waaye ku nit nga xam ne moom la yàlla njëkk sàkk moom Cheikh Anta wax na ne nit ku ñuul la itam yaakaar civilisation égyptienne nga xam ne moom la ay monuments yu am solo ak loo xam te ne wax am solo ñëpp d' accord nañ ni en tout cas chercheurs yu bëri d' accord nañ ni civilisation la ni ay nit ku ñuul ñoo ñoo fa nekkoon kon yooyu yëpp nag tubaab yi dañ cee joué ray suñ culture ray suñ civilisation gëm loolu ñun amuñ culture amuñ civilisation amuñ dara tekkuñ dara ba def si ñun suñu bopp benn esclavage mental boo xam te nii man mii am naa ko yow may sataan xëy na nga ko ñeneen am na ko te tant que dindiwuñ ko gëm suñu bopp xam ñooy kan duñ mës a dem te loolu pour ñu dindi ko il faut ñu am fit parce que ñoo ragal trop on est très très très euh, voilà on est des o des quoi ay ragal ay ay tapis yu rëy lañ ne ku ci wax sax yaakaar nga yaa ngi tremble yaakaar nga bu suba sa patron woo la ne dama ñibbi gën a dëkk bi génne affaire yooyu yëpp il faut ñu am am am am fula am fayda gëm suñu bopp xam ne nekk nit ku ñuul ci bitim réew war a tax ñu tëj suñu làmmiñ ne ba ñoom bu ñu amee problème kenn waru kee wax ñoom jàpp ne nit ku ñuul wala arabe bu ñëwee France dafa war a def rek xëy dem liggéey liggéeyi bu wàccee tëdd néegam ñu ñu fay ko xaalisam waaye warta ŋaang warta warta wax donc boo commencé di joxe analyse yooyu sax ñu commencé saaga la wala ñu indi lay problème yooyu ay stratégie d'intimidation la pour gëmloo ne da nga war a noppi te itam kenn waruñoo noppalu ndax ay nit lañ fi lañ dëkk di fi liggéey di fay suñu impôt kon am nañ droit bu fi ay problème am na ñu mën cee wax waaye dañoo dem ba intellectuel africain yu bari bari dañoo dem ba dañ ko accepté jàpp ne lu normal la te itam loolu yaakaar naa ni africain yi waruñu ko nangu ndaxte ñoom bu dee am nañ sañ-sañu leen toroxal leen ray leen seen kàllaama imposé ñu ko ak seen culture ak seen diine ñu itam war ñu am droit ba bu ñëwee fii itam wax ma ñu imposer suñu culture et wàllu ñu dara waaye itam ñu am fulla ak fayda boobu bu fa amee te ne doxal mën cee wax wax suñu xalaat waaye du naan kenn duñu noot wala ngay noot xel ndax loolu yaakaar naa ni du loo xam te ni ah, baax na ci nit ku ñuul kon maa ngi leen di sant leen bu baax a dama mën a wax daal ci gàttal mooy loolu di monument boobu teg ci Sénégal ñu naan ko monument Faidherbe pour man amu fa benn njariñ nañ ko fa dindi mu set fa mu dindi fa mu jógee fa comme niñ ko amee ci yeneen réew itam bépp réew Afrique boo xam te ni monument ba ba fa nekk dañ koy mandargaale koo xam te ni colon la woon boo xam dafa ñëwoon pour soumettre suñu yaakaar naa ni wax dëgg yàlla teg ko fa saaga la gàcce la kon ñu demee ba tey jii nii en 2020 ñu soog wax ci loolu man jàpp naa ni sax défaite la war nañ ko wax depuis très longtemps waaye pourtant mosuñ cee wax te yaakaar naa ni su ma juumul statut boobu ma nga fa woon depuis euh, su ma juumul 1800 ak lu tegal kon nga xam ni kon dëgg-dëgg gàcce ñeel nañu waaye nag euh, xëy na noonu waroon demee kon l'africain yi profité ci moment yi nii mën a waat gëm suñ culture gëm suñu bopp góor góorgóorluwaat xam ñooy kan xam ñan ñoo baaxoon ci ñun ak ñan ñoo bonoon ci ñun xam ñak kan la war a tuddee monument kan la war a tuddee université kan lañu war a tuddee l'école kan lañu war a tuddee terrain de football kan la war a tuddee euh, rajo wala télé xam ne vraiment loolu dem lu am solo ci ñun ndax yaakaar naa ni jël ay tur tubaab yoo xam ne xamoo fu ñu jugo fu ñu juddoo xamoo fu ñu fu ñu jógee jël leen di leen valoriser di leen vénérer sax lay wax comme kuy jaamu yàlla suñu borom te ñoom bi ñuy dund lépp luñ mësaan wax ci nit ku ñuul lu bon la am na ñoo xam sax xëy na buñ mësaan dox ci mbedd ba dajee nit ku ñuul sax boo defoon naa ko ñu jël bala fetal la nga sedd guy yaakaar naa ne loolu moom dëgg-dëgg gàcce ak esclavage mental mënu ko su waaw doo ko gis ci chinois yi doo ko gis ci indiens yi doo ko gis ci pakistanais yi doo ko gis ci arabe yi nit ku ñuul rek a gis nga xam ne dëgg-dëgg war nañu mën a falaat suñu bopp xam ne nag yàlla suñu borom sàkk nañu te itam Euh, am na fu ñu teg kon waroon ñoo mën a jox su bopp tuuti tuuti personnalité maa ngi sant leen gërëm bu baax a baax lépp lu lëndëm sama wax ji maa ngi koy maa ngi koy maa koy jégalu xam ne sama matadi la lépp lu ci leer itam maa ngi koy sant yàlla suñu borom bu baax a baax di ñaan yàlla ñu amaat possibilité pour dajawaat fi gën a gën a gën a yaatal bu baax a baax merci euh, maa ngi leen sant leen gërëm bu baax jërë ngeen jëf